d'accord ñu jógee ci sujet boobu dal ci deuxième sujet bi moom mooy saccage yu ñu noté woon dimanche bu lay passé arène nationale ba nga gisee ama image yooyu ci télé bi lan la la def. mais daf ma choqué comme ni mu choqué sénégalais yépp mhm. je pense que képp kuy sénégalais bi nga gisee ñuy dajji chaise yi. Mhm. di ko saccagé am nga lu la metti ci sa xol. Mhm. parce que dafa ñaaw te amul dara lu ko mën a justifier et à plus forte raison on di mbër bi gagné ay supporters am ñoo doon yàq. mais loolu loolu loolu lu mu doon. Mm. yow même ñu la gañee amoo droit yàq waxuma la ak boo gañee donc sa sa mbégte wala sa mer war nga ko manifester neneen nu dul yàq li nga xam ni ñëpp a ko bokk. Mm. parce que tey arène nationale ñun ñoo ko doon jooy. Mm-hmm. Euh, làmb da doon toltolaan fi ñu doon bëree yëpp stade football la. Mm-hmm. dañ ñu fa xajaloon. Mm-hmm. ñu am stade handball muy Iba Mar an bal bi des fois mu ni dama soxla sama stade promoteur yi di toltolaan ñu dem ba ñu defaral ñu nga xam ne suñu moomeel la làmb même si c'est un stade euh, omnisport làmb moom moo ko moom muy arène nationale mais li ñu moomal suñu bopp ñun waruñu ko yàq et puis dafa am fuñ ñu dëkkal ñun waa axlu làmb làmb mérité wuñu lii dañoo am fu nga xam ne dañ ñun wax ne buñ lay sédd ci gaanu xaj ñu la ca fekk nga lekk mm-hmm. dañu làmb violence dañu làmb ay dofa dañ ne làmb mérité wuñu stade bu nga xam ne ay ay chaise plastique moo fa nekk. Mm-hmm. dañ leen war a defal ay chaise ay ay chaise xeer béton lañ leen war a defal mais yow ñu ñu ñu séddu ñu ci gaal googu ñu ñëw lekk ci ba takk ci rib mais ñun ñoo tooñ suñu bopp. et ñi ko def. Mm-hmm. ñi ko def on doit les sanctionner sévèrement. exactement maintenant euh, am na fu nga xam ne d' accord ma ci ak CNG ci sanction yi. muy fan ci forme bi. maanaam ci forme bi maanaam tey bala ma laa sanctionné yow. mbër mi mbër mhm. am na ay procédure yu nga xam ne texte daf ko teg balaa ngay sanctionner nit il faut nga auditionner ko mhm. mais les lutteurs mhm. dañ leen a ak leen deux ans dont un un an bu nga xam ne ferme la benn bi euh, sursis la ba pare téye seen reliquat sans pour autant interdit leen stade bi sans pour autant nga auditionner leen donc je pense que tey la procédure parce que man nekkoon naa président CQRP ci ci nawetaan mm-hmm. expérience boobu moo tax may wax tey même dans le règlement de la balaa ngay sanctionner nit da nga koy déglu boo ko owee ba mu ñëw nga déglu ko xamal que lan lañ koy tuumaal waaye yoon sax bala mu lay tëj dina la ne euh, diw da lii lañ lay toppee mm-hmm. yaa ko def walla defoo nga lay buñ lay daan soog la daan mm-hmm. donc dans dans la dans la forme am na vice de forme foofu. te man bu ma yoroon mbër bu nga xam ne dafa bokk ci yëf yi ñu sanctionné ko. damay attaqué procédure boobu te bu ma ko attaqué mun naa ci am ndam. pour vice de procédure. maintenant la sanction on n'en disconvient pas dafa war a dal. te xëbal bu njëkk day dal. lu mel ni kenn mënu ko bàyyi mu jàll. kenn mënu ko bàyyi mu jàll et puis warul nekk sax sanction rek bu nga xam ne day dal ci kaw mbër bi. mais ñi ko def. il sont facilement identifiables. surtout que image yi feeñ na. image yi boo demee Leewtoo ñu jox la ko. Mhm. boo ñëwee ITV ma jox la ko. Mhm. boo demee beneen télé ñu jox la ko mais au la de ça arène bi dafa am ay ay ay ay caméra de surveillance mhm. tey boo jógee EDK di ñëw bët ci yoon boobu yëpp arène bi ñu ngi lay filmer waxuma laa nga nekk ci biir kii bi euh, événement yi fi amoon. ba ñu caxat caxatee réew mi a jàppal bàyyi. mais ña ko def dañoo xëy xëy da ngay xëy police fëgg la. ci la ci ay image mm-hmm. image yi nga xam ne image yu téléphone la donc image yi leer na. ñi ko def xam nañu leen. Mm-hmm. nañ leen identifier sanctionné leen man loolu laa d'accord. d'accord ñi ko def ba léegi identifier guñ leen est-ce que du manque manque de politique wu kii euh, CNG moom moo moom moo kiiwul ba bu trop telle sorte que ba léegi mënul leen a jàpp. bon CNG. am na ci part de responsabilité mais infrastructure bi du moomeelu CNG. infrastructure bi mooy moomeelu nguur gi la gouvernement moo ko moom teg ko ci loxo ministère de sports ministère de sports am fa département bu nga xam ne mooy gérer infrastructure. le directeur des infrastructures tey war na commettre un huissier mu dem constater la fa xew ñu identifier ñi ko def même bu ñu leen tëjul. même bu ñu leen tëjul parce que man tëj nit moom defe naa ni man bokkul ci man damaa baax. man moom boo doon gis du ma tëj kenn. mais mais même bu ñu la tëjul. ñu woo la teg la ci place teg la luñ la war a teg. c'est-à-dire tey jii bu ñu la jàppee yow Assane Waalo teg la fii ni la lii yaa ko yàq. boo ko fayul ñu defeere la. bu doon million say mbokk dem wuti ko. lu leer la. booy ci jël identifier la. ni la 16 bu nekk 300000 la. say mbokk dinañ wuti 300000 indi ko ñu defaraat chaise yi. c'est aussi simple ñoo ko yàq nañ ko defar pourquoi état war ko defar pourquoi CNG war ko defar pourquoi reliquat mbër bi war ko defar et puis mbëri aussi nañu gën a waxtaan ak ñi leen di topp parce que lu lu ñu def ci seen kaw lay dal man daal ku mën a ànd ak man hmm. ñëw supporter ma ci jàmm ñu ñibbi ci jàmm hmm. xayrul ku ko mënul nga toog sa kër parce que sama teraanga kenn du ma ko yàqal loolooy fula jërëjëf Malick ñoo taakee troisième et euh, kii bi partie bi Euh, grande affiche yi la ni waxtaane ñu ndeke ci euh, combat royal bi nga xam ne war na doxal ci diggante euh, Ama Baldé ak Modou combat ba léegi depuis deux ans mënul fexe ba taxaw lan moo ci des yow mi nga xam ne jege nga lig Nicolas waaw combat bi taxaw bi moom am na mhm. mais li ci des mooy régulariser Luc promettre na ni dina ko régulariser ci ci ci ci semaine bi mhm. ñu ngi xaar parce que c'est un combat bu nga xam ni àddunaa ko soxla mhm. combat boobu mooy combat bu gën a rëy ci saison bi combat gënu ko rëy xam nga bu njëkk dañ doon wax le combat du siècle mhm. mais bi c'est le combat du siècle et c'est le combat de tous les dangers mhm. lu tax nga ah. combat la bu nga xam ne Ama dafa am gannaaw mhm. dafa am gannaaw Modou Lo ku ko ëpp gannaaw ci làmb ji c'est le lutteur le plus populaire de l'arène mu neex la mu naqari la nga bëgg ko nga bañ koo bëgg Modou Lo dafa am bayre macha allah mhm. mhm. fu mu ku ko tëgg boobu bu la neexee nga tëdd la ta xam ne stade bi dina fees Ama Baldé jamono ji moom mooy porte étendard Pikine ak la grande banlieue Pikine dañu gëm Ama yaakaar Ama bu jógee ñépp jóg donc ñaari mbër lañu yu nga xam ne euh, boo leen boolee mm. xam nga ni combat du ko dàq parce que ñaari dañu mën a bëre benn dañu am contentieux bu nga xam ne dañ ko war a régler ñoom ñaar ndax daje nañu mbapat bëre combat bu metti mhm. combat bu metti bu yàgg ci bu ki nga lan nga ñu mën a indil ci combat boobu mbapat mbapat boobu dañ koy dégg nii rek gars yi di wax est am nga ci information si mbapat bi démb rek seetaanaat naa ko hmm, ok <laughs> rek seetaanaat naa ko bëre nañu lu yàgg bëre nañu ba dem ci làng gi bëre nañu ba jeex si la ko Modou Lo daan donc euh, bi ko Modou di daan boobu pratiquement ñoom ñaar ñëpp sonn nañu mais Modou sur un coup de génie la daan Ama mais tëwoon na combat bi metti woon na donc euh, combat la bu nga xam ne tey delloosiwaat ko dafay neex mhm. ndax sëll wi màgg na Modou egg na ci niveau bu nga xam ne tey euh, c'est un niveau insoupçonné mhm. te combat bu nga xam ne euh, Modou Lo daf ci mettre en jeu sa couronne couronne bu nga xam ne nan la ko amee ci kaw Eumeu Sène mi dëkk Pikine mu nekk beneen affaire encore mu nekk revanche par procuration parce que magu Ama Baldé di Eumeu seen di kilifa Ama Baldé moom la moom moom la Modou Lo daan jël bu metti mu metti Ama metti waa Pikine Ama bëgg faj mer waa Pikine loolu loolu xam nga loolu mbir la mhm. Modou aussi parewul pour premier combat ba ba ca topp rek mu ñàkk couronam mhm. bu demee ba jël Ama am na xam na bu baax li tax mu jël ko mhm. parce que dans ce moom moo ci ëpp lu muy perte moo ci ëpp lu muy perte. combat bi yow nan nga ko gisee da combat xeex la wala combat léwtoo la bëree mu jeex. noo bëree ñaari jinne la dañuy mbapat dañuy mbapat hmm. te xeex moom mënu ci ñaax mënu ci ñaax mënu ku ku bëreeg moom dinga nga xeex euh, euh, waaw dina la xeex lool. Hmm. te Ama aussi dawul bagar donc combat la bu nga xam ne lépp man am explosivité bi ci nekk ci biir combat bi rek kenn mën la ko wax mais li wër combat bi man mooy sama problème et je l'avais dit il y a de cela quatre di euh, Modou Lo di def. Euh, conférence de presse bi je pense que am ngeen ko maa ngi doon wax ne c'est le combat de tous les dangers combat la bu nga xam ne ku koy organiser na nga jël le maximum de sécurité parce que am naa ci tiit hmm. lu tax nga ah, li tax ma tiit ci mooy li xew barki dem rek j'avais averti ni leen ñaar ñooñu fu ñu dajee jàmm du fa am hmm. jàmm du fa am ils ont des supporters très chauds mais est-ce que arène bi du xat ci supporters yi. waaye yow euh, arène national bi sax combat bi xaju fi. imagine Modou ak mbooloo ñëw arène nationale waa Pikine ñoom dañuy ñëw fanaan ci arène bi jiitu leen mais làmb jooju bu tasee yow yaa ngi imaginer quel soit lu xew yaa ngi imaginer lan moo nar a xew ci làmb jooju mais il faut il faut que nit ñi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci média ñuy avertir mm. ba bu ëllëgee ñu ne ah attention waxoon nañ ko. combat la bu nga xam ne dafa dépassé sax personne u Luc Nicolaï c'est un combat bu nga xam ne même état daf ci war a dugal loxoom sur le plan de la sécurité lu jël ci matuwaay ci wàllu sécurité doyul lu nekk mën na ci am et je le dis lu nekk mën na ci am. ñu ma lay gisee nii da nga tiit ci combat bi. waaye yow booy du ma magum xamoo. <laughs> xamoon naa xaw ma waxoon naa ko xamoon naa ko. combat bi lu nekk mën na ci am te maanaam avertissement sans frais mooy li xew barki démb ci face à face bi ñu waroon def seen TV maintenant beneen bi ci topp moo de ni lii di ñëw il faut que Luc jël ay matuwaayam man bu ma doon moom sa ñaari bëri du ma leen boole mukk ñuy def face à face. à distance à distance mën nañ ko def. d'accord waaw ok ñu dugg ci benn beneen affiche rek euh, Tapha Tine ak Boy Niang ñu tëjee boobu. waaw combat combat bu neex a ngi noonu parce que opposition de style la. Mm-hmm. Euh, Tafa c'est un super lourd. Mm-hmm. parce que ja jamono yi xaw ma gis ngeen ko xaw ma gisoo leen ko. waaw mu ngoog xam nga ni Tafa moom moom. la macha allah li liggéey na. Mm-hmm. diis na gan. te loxo bi macha allah kuy bëreeg moom boo demee ci sëriñ bi da ko naan teel ma loxo bi. <laughs> Ah, ndax di nga ci taq rib donc ku ko am am nga combat mais booy Niang. c'est le lutteur le plus intelligent tactiquement ci làmb. dafa naqaree c'est il est il très futé macha allah dafa muus. dafa mën a dafa am ndoxtu dafa mën a liir combat. moo tax kuy bëreek moom boo sàgganee dina la daan ba ñibbi ngay soog a xam ne daan na la. parce que ni mu toll doole ji ëpp na ko. mais xel mi moo ko wër macha allah dafa muus. mais Tafa c'est un lutteur bu nga xam ne euh, il est mm-hmm. naqari naa bëreel am na doole mën na xeex. moo tax euh, combat la bu nga xam ne euh, dina metti de. dina metti dina metti kan mooy favori ci combat boobu. non est-ce que du cinquante cinquante parce que combat bu nga xam ni tey pour joxe ci favori dafay dafay dafay dafay doy waar parce que xam nga euh, loolu dama ko yàgg dégg. ci jamono yi Tafa gee di daan poids lourd yi. Mhm. Tafa il faisait quatre vingt dix kilos. Mhm. dañ ko doon jox ay ñoom maam njëmbaat mu leen di mhm. daan jël yu nga xam ne. danga naan nan la ko mëne ci sa doole ak sa pois la lay fekk daan la. moo tax punkal bu demee ba entraîné ba am quatre vingt dix kilos ku mu jàkkaar loolu ëppatoo ko doole mën na la daan. donc ñoom ñaar ku ci nekk am nga pour wane sa bopp ci kombaa bi. booy ñaar am na lu mu jógee tafaatin am na fu mu bëgg a dem. te satisfaire seen besoin. Mm-hmm. pour ñu atteindre seen objectif foog ñu bëri. d'accord mais bëri bu jaxasoo amee rek musiba mën naa. dëgg la ñu tëjee ko foofu lan lay tàggatoo ak internet. waaw di di euh, di leen tàggu rek di euh, di rafetlu liggéeyu Leewtoo ay ndaw ngeen. vraiment yéen a ngi def liggéey bu mucc ay et dans tous les domaines. du du du rek làmb. Mm-hmm. Euh, sur le plan de l'information général et cetera yéen a ngi def liggéey bu nga xamante ni liggéey bu am solo la te loolu damay faral di wax ni tool bi yaatu na ku ne mën nga bay ba sa ileer damm nga jóge fi sa moroom ñëw bay te du ko jeexal. Hmm. kon nañu yaatalante euh, yaatal géew bi ku nekk ñëw def ci li nga war a def donc ñuy balu àq ñëpp encore une fois bu dee wax nañ fi lu jubul aussi ñu ngi koy jégalu mais lépp rek euh, suñu mata di doomu aadama mooy tax xëy na ñu juum mais li ñu wax yëpp mooy suñu conviction. Hmm. man sama intime conviction laay waxee. lu ma wax lu ma gëm la. dimanche <laughs> dimanche hmm? <coughs> dimanche. dimanche. <laughs> waaw waaw da <laughs> xam nga euh, keroog sama corde vocale yi xaw na dagg. Euh. mooy ci combat. ah gisoo léegi maa ngi saqat la dëgër. la dëgër Eumeu Sène. Eumeu Sène ñu seet si ma jox ma lu ma. <laughs> parce que dama yuuxu dimanche 4 avril. gars yi gi ma ko yuuxu ak fa ma ko jële mhm. sama corde vocale yi xaw naa dagg laa lay wax ba pare ñu nekk fay léewtoo comme sa turu kii léewtoo. di léewtoo 40 minutes ma wax ba sama ñeex jeex kenn daanul morom ba léegi baat bi mënagul normal <laughs> en tout mi ngi noonu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm équipe bi nga àndal ah ak Nafi sama jigéen euh, di leen encourager di leen wax ni yoon waa ngi noonu mm-hmm. liggéey bi moom da nga koy teg ci professionnalisme rek affaire bi lépp loolu la gëm sa bopp parce que ñun li ñu yor yàlla boo koy def ci doomu aadama. Mhm. Euh, li nga yor nag da nga koy gëm. Mhm. il faut avoir confiance en soi gën sa bopp liggéey pour jëm ci kanam. jërëjëf grand Malick euh, référence nga ci euh, milieu lamb ñun ñu reporter yi wala journaliste yi référence nga ci ñun sincèrement di la remercier bu baax a baax a baax li ñu accepté l'entretien bi di remercier également internetu Leewtoo TV di leen jox dig daje beneen jotaay incha allah jërë ngeen jëf.